nee na ci ñaari laaj ñaari malaaka yonent bi melal na ko ci yére ba mu sol ne masbuxataani dañu ko cuub mu ne kawar ga nag mu nga rafet moom yonent yàlla isa nee na mu nga liis nee na bu téenee nag moom sidna isa nee na danga dafay mel ni bopp ba nee na wurus moo cay rote day mel ni ay peppi wurus mooy rote ca bopp ba waaw ndax kawar gu rafet jëmm ju sell te jekk nee na boo séenee si na isa nee na da foog ne dafay soog a génn ci douche dafa mel ni dafa sangu génn ci duus day mel ni bopp bi ay toqi ndox moo cay rote ci misaal ko set la woon ci misaal itam mazhar bu rafet bu set la yor moom Sina Isa nee na mu ngay wàcc nag ci almanaar al bayda ca penku dëkk bi ñuy wax Dimashq mu mel ni soroor boobu wax nen ne amoon na yàqu-yàqu bu ca amoon waaye gis nen ne tabaxaat nañ ko te ay chrétien ñoo ko tabax ay nasaraan ay nasaraan ndax man mën naam ñu ko tabax sax day orthodoxe waaye daal nasaraan yi ñoo ko tabaxaat ñu ne kon tabaxaat boobu ñu tabaxaat sorol boobu nga xam ne mu ngi ca charqiya dimashq te ci la isa bnu mariam war wàcc mooy barab bi muy wàccee wax ne ne tabax bi ko nasaraan yi tabax junj la buy wane ne ñoom gëm nañ ne seen sang bi foofu lay wàcc mu jóg jamono pour xettali ji imaamul mahdi ak njabootam nee na ba mu wàccee foofu nag ci fajar googu ci lëndëm googu ndeke boobu yàlla bëgg a maske wàcc gi ci la nag jubal nag moom isa bnu mariam jëm ca soppeem bu tedd ba di imamul mahdi ak i saxaabaam nee na mu xuus lëndëm ga nag ba dugg si ci ñoom nee na ne tëll ak ci seen biir fekk boobu ñoom jàngoon nañ ci njàngaleem yonenti bi melokaan salaam taay baak tabarakallahu nee na bi mu ne tëll rek mu mel ni mooy lampe projecteur bi dindi lëndëm gi ci ñoom mu leer nañ ci ñoom nag ñu daal di kàbbar ne allahu akbar jaa al gawth yàlla màgg na ki ñu war a li yàlla indi na ko nee na booba fekk na Seydina Isa bnu Maryam moom ak yonent yàlla Moussa amoon na lu ñu bëggoon ci seen dund ndax yonent yàlla Moussa gisoon na li yàlla defal xeetu Seydina Muhammad ba waxoon na yàlla sax ne ko dindil sama yonent te boole ma rekk ci xeetu Seydina Muhammad yàlla ne ko lu tax mu ne ko ndax dama gis ne yonent bi li nga ko defal ci xeetu taraanga defal koy xeetam jiggi na dayoo ndax li nga koy fay di ko fay xeetam fayoo ko benn yonent ak xeetam kon ma gis ne nekk eh, ku simple ci xeetam moo ma gënal sax sama yonent bi Seydina Isa bnu Maryam itam amoon na mébét boobu te mooy bokkoon ci xeetu seydina muhammad wala dundandoog ñoom moo tax yàlla may ko moom itam occasion bi mu dund ak xeetu seydina muhammad ndax mébétam la woon moo tax bi mu ñëwee ba gis koo xam ne niroo naag seydina muhammad te seydina isa dafa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa moom bu sañoon rek bokk ci saxaaba yonent bi ndax cofeel gi moom ci moom ñaari yonent mënuñoo ànd ndax benen yonentou du ñëw ci ginaaw waye nak tay ki nga xamne moy mooy imaamul mahdi al muntadar jëm ji di isa ibn maryam daje na ak moom waaye nag moom imaamul mahdi mo representer rasulullah mo moo représenté yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci melokan bi tabarakallah ci mission bi bi sina isa wacce Eh, li mu njëkk a def mooy commencé jël loxoom bu tedd ba di ko raay ci kanamu imaamul mahdi ngir barkeelu ca kanam ga ñii ne ngir cofeel gu mu am ci xeetu sayiduna muhammad rawatina yonent bi ci boppam waaw ngir juróon na rekk gis dogitu yenent bi ba barkeelu ci moom moo tax mu jël loxom bu tedd ba raay ko ci kanamu al imaamul mahdi akolaat ko taf ko ci boppam yamu ca mboolem saxaaba yi mu àndaloon noona itam la doon doxaleek ñoom di raay seeni kanam ngir cofeel gu mu am ci ñoom mu mel ni occasion boobu yàggoon na ko mébét tey la ko yàlla defal mooy yàlla feeñal na ko ci xeetu sayyidina Muhammad te moom dong moom moo ko am ci yonent yi dund na jamonoom waaye itam dund na aslëf ci euh, message yu yonent bi sallallahu alayhi def ko ak jëmm ju tedd joo xam ne mooy jëmm ji gën a mag ci ginnaaw yonent bi te di ko représenté te yonent bi junj ko ci xadis yu bari mu di imaamul mahdi mu mel ni bi mu raayee seeni kanam ba noppi nuyoonteeg ñoom saafoonteeg ñoom commencé nag di leen nettali nag seeni daraja ca àjjana di leen wan ne ñoom ñoo nekk ci dëgg ndax yonent bi waxoon na ne balaa àdduna tukki dana am du ñàkk mukk ci sama xeeb ñoo xam ne ci dëgg rek lañuy teg seeni tànk ci la ñuy xeex te yàlla dana leen jox ndam mu wan leen ne leen yéen nag ca ngeen bokk te seeni maqaama rëy na ca yàlla Seydina Isa moo leen wax loolu foofu nag yaqaamal na nu julli gi ndax julli fajar la woon noddoon nanu ñëw na ci diggante bi tatagal nanu ko saafoonte na ak ñoom tabaarakallaahu sargal nanu ko léegi nag taxawal nanu julli ci mbaaxug imaamul mahdi mu ne isa bnu mariam doxal nga ji jiite nit ñi solli bina ya rasulallah sidna isa ne ko mukk mu ne ko lu tax mu ne ko li mu ne ko baadukum li baadin imam yàlla moo leen terale yéen xeetu sayiduna muhammad eh, ngeen di jiitante ci seen biir kenn ku ne doy na sa moroom imaam moom moo waral ngay gis rek bu julli jotee kenn ku ne di buux sa morom naan ko yaa war a jiite ndax ku jiite rek baax na loolu nag yàllaa ko terale sayyiduna muhammad terale ko xeetam moo tax si na isa ne ko jiiteel nga jiite say taalube foofu nag imaamul mahdi nee na kàbbar na nag jiite julli ga kon julli fajar googu imaamul mahdi moo ko jiite seydna isa taxaw ca gannaawam en tant que yonent daal di roy ci imaamul mahdi ñune biñ ne ko jitel ndax yonent nga daf ne mukk duma yonent ndax benen yonent du ñëw ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama delu si wali yu rek la mëna doon waye mënuma doon ab yonent motax mu daldi dégager responsabilité bàyyi ki nga xamne mo représenter yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jité modi imamul mahdi kon nak mom sidna isa liko taxajuk ñaar la ca mooy rey masiixu dajjal ngir xettali imaamul mahdi ak njabootam xettali umma islaamiya bi ba pare itam xamal nasaraan yi ne nekkuñ ci dëgg looloo ko tax a jóg waaye ñëwul pour wane benn e, sharia boo xam ne indi ko ci ginnaawam moo tax dolliwul ci alquran dara dolliwul ci li yonent bi bàyyi woon dara dafa ñëw rekk topp ci li fi yonent bi bàyyi ñu ne ndax ku baaxee ni Isa bnu Maryam bokk ci ulul azm min ar rusul xam ni ci yonent yi gën a baax yi ëpp dara ji ci la bokk ndax imaamul mahdi daf ko ëpp daraja looloo tax mu jiite ko ñu ne déedéet ëpp ko daraja Seydina Isa moo ko ëpp daraja سيدنا عيسى مو ابو درجة الإمام المهدي آه، رأيت في كوردن بمعنى سانغروي كينغا خامن موكو يلف نخلولو lolou ولا wala ayul ñu te itam taxul ki jiite am daraja ci ginnaaw sangam bi mu jiite ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, Abdurahman ibn Awf jiite woon na ko julli te ku ne xam na ne yonent bi moo gën Abdurahman ibn Awf Abu Bakrin Siddiq jiite na yonent bi julli te ku ne xam na ne yonent bi moo gën Abu Bakrin Siddiq kon su fekkee imaamul mahdi jiite na Isa bnu Maryam du ne daf ko gën walla daf ko ëpp daraja loolu wàññiwul dara moo tax suñu baay bu baax ba mam alxaji abdu yal na yàlla yokk leeram fu julli ma sànna jot rek tabaarakallaahu ah ku fa ne mu ne la ay ca doxal ci kanam loolu lépp li tawaaduihi ngir wàcce boppam ba tax nag kii puukare wu ci ak imaam foog ne gën nit ñee tax muy jiite kon xamul waaw xamul bari na koo xam ne ñi muy jiite ko gën fop fop fop foofu nag bi nga xamante ni yàlla dogal na imaamul mahdi julli ba noppi seydna isa alayhi salaam dafa wax ak ñoom ne leen ñetti charte de moo fi nekk benn bayna an yursil allah ila dajjal jundan min alsama yuhlikuhum yàlla day mën na yebal ay soldaari malaaka yu jóge kaw asamaan wala ci njaboot gi mu am moom yàlla ndax ku ne xam na ne ba muy alak abraha tayran ababila la yebal kon nag yàlla mën naa yebal lu alak masiixu dajjal foofa loo xam ne sax du ñu nekk ay malaak mu ne bu ngeen bëggee mën naa wax ak yàlla mu yebal soldaar yu alak masiixu dajjal fii ci suufu montagne bi mu leen di xaar wala wa bayna an yusallit allahu suyufa almuslimina ala dajjal wala boog yéen ci seen bopp ngeen def seen jihaad yoo xam ne daa ngeen ci am yool wàcc xeex ak moom te bu boba yalla dana leen jox ndam wala bo yalla ci bopam xas fu dajjaal ko moy lan digal suuf suuf wan noko wan mbollem soldar yi mo andal def leen ben bammel ne leen nak ñet yi tan leen ci ben waye julit ñi xam ne nga lu jihad ak li ci yalla di fay ñom ñep ñu ne ko dal ñu jihad ak mom ci suñu jasi rey ko am ci yoolu yàlla wala mu rey ñu ñu dugg àjjana boobu daal moo ñu gënal te loolu moo di ak njàmbaar loolu moo di ak njàmbaar mu mel ni suñu boroom waxoon na ne danaa dimbali samay yonent moo tax yonent bu ne wala képp ku nekkal yàlla ndimbal loolu dig la bu jóge ci yàlla jëm si ci yow lu jamono metti metti boo ca boo saxee rek boo ca saxee rek ndimbalu yàlla daal di ñëw متفهمك يا روح الله الثالث أحب إلينا وأشفى لصدورنا منك يا روح يالجي آه، ترازين بدي موني جنال تموي دم خخك مام آه، نجيك بي موي مويبل صدار يوري مسيح الدجال ولا بوك بنيار البي موي مخصف لين تموي سوف ونو لين bu ñetteel bi mooy ñoom ci seen bopp ñoom jullit ñi ñu ànd ak imaamul mahdi ak isa bnu mariam xeex ak masiixu dajjal muy jihaad ñu ne ko daal al thalithatu ahabu ilayna wa ashfa li sudurina nee na foofu nag ñu ubbi buntu montagne bi ñoom ñëpp ñu daal di wàcc nag jëm ci dajjal bi ñu ñëwee ci moom nag xeex bi daal di commencé muy xeex bu jéggi ci diggante e, masiixu dajjal al imam al mahdi ak e, tabarakallahu isa bnu mariam nee na bi masiixu dajjal yégee ne seydna isa mu ngi ci mbooloo mi ci la tiit nag ci la tiit xam na ne pouvoir boobu moo ko ëpp doole te moo koy faagaagal moo koy rey ci la ma masiixu dajaal daw nag wuti moom fu mu làqatu ndax xam na ne yàlla yebal na jëmm joo xam ne su ko gisee dafay ruy ñii ne dafay seey ni xorom di seey ci ndox moo ngeen di gis suñ mbokku tubaab yi seen filmu vampire yooyu bu ñu ko dee Eh, joué ci maanaam buñ ko def feeñal ci film yi dangay gis film bi vampire bi bu ñëwee ñu jël croix bi tiimale ko ko su ko defee bu deltuwul gannaaw croix bi da koy lakk ba mu nekk doom wala mu seey loolu lépp misaal la buy wane ne ñoom itam ñu ngi bàyyi xel jàngaleem lislaam ndax loolu la lislaam jàngale ci seydna isa ibnu mariam su ñëwee su ko masiixu dajjal gisee dafay dal di ruy wala mu seey ni xorom di seeyee ci ndox kon ñoom itam ñu ngi wane misaal boobu ne croix bi mooy isa ndax ñoom jàpp na ne li ñu daaj ci croix bi mooy isa kon isa noonu lay def seytaane yi te seytaane bi ñu jublu ci vampire bi nag mooy masiixu dajjal motax tax masiixu dajjaal daal di daw ànd ak yahuud yi ko gëm fan la ñu jëm ñu nga jëm nak ñom itam ci dëkk ba nga xamanteni ni nañ ne dëkk bobu euh mo leen di ar dëkk bobu modi baytul maqdis modi falestine Palestine waaw ñu tuddee ko ardul malaaxim ardul siraa te ku ne xam na ne eh, lu jege téeméeri at juif yi ñu ngi rayanteeg jullit ñu foofu kon suuf soosu suufu xeex la suufu bëre la ci diggante jullit ak yéefeer te daanaka problème yi am ci àdduna bi yëpp foofu mooy xol bi waaw foofu mooy xol bi tey bu jàmm amoon rek lépp dal waaye kenn xamul lan la waaw kenn xamul lan la jékki na jékki rek suuf sa daal nekk suuf soo xam ne yéeféer ak jullit ñu ngi fay bëre rayante bis bu ne te bis bu ne na ngeen gis tabaarakallaahu e, rey gu métti goo xamante ni yahud yi ñu ngi koy rey jullit ñi doole jooju ñu am nag ci Israël ndax boo ne fa boo sax tooñ ndax Palestine la mooy cosaan li Israël dañ ko dagg rek dugal ko fa ci diggante boo xam ne daanaka bañ ko defeek léegi matul téeméeri at te tubaab yee ko def indi fa fitna boo xam ne occupé suufu jàmbur teg ko ci tooñ di rey seeni jigéen di rey seeni doom di tëj seeni boromi xam-xam tabaarakallaahu di doyedal lislaam mu ngoog moo tax ñu tuddee ko abdul malahim abdul siraa mu mel ni ñoom dañu wax ne masiixu dajaal mi doole la ci ñoom waaye masiixu dajaal gis na doole ju ko mën a mëdd te xam na ko xam bu wér moom itam mu daal di daw nag wéeru ji ca dëkk boobu di eh, baytul maqdis waaye mbokk yi yonent bi jàngaloon nañu naka la ñu mën a muccee ci jëmm ji di masiixu dajjal su fekkee feeñ na ci jamono balaa ñu leen a wax nag li nga xam ne moo xew ca baytul maqdis bu fekkee Seydina Isa fekk na ko fa ak xeex ba fa am daañu leen wax bu masiixu dajjal feeñee nu jullit bi di mën a def ba mucc ci moom ñu ne euh, النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النبي أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يبيغ عنها إلا هالك فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه ينوي النبي صلى الله عليه وسلم musul dañ di orienté xeetam ci lépp loo xam ne dana ko mën a musal ñoŋal ko ci fitna bii di fitnatul masix masiixu dajjal bàyyiwoon na xeetam ci yoon wu leer wa nga xam ne weex na tal nga xam ne guddi ga ak bëccëg ga ñoo yem yoon woo xam ne nee na du mën a wàcc yoon wa du dul ko alku ko alku rek kay bàyyi yoonu yonent bi waaye waaye ku mucc rek a cay toog ku mucc rek a cay jàpp yonent bi musul bàyyi yiw lu dul ba wax nañu ne lii yiw la jàpp leen ci musul gis ay lu dul ba nee nañu lii ay la moytu leen ko kon nag la ko waroon def na ko lu baax lu ne jàngal nañu ko lu bon lu ne wan nañu ko pour ñu moytu ko at tamassuku bil islaami wa tasallux bi salaaxi l imaan wa macrifat wa macrifatu na bu ñu bëggee mucc ci masiixu dajal bi ci njëkk mooy nanu jàpp ci suñu lislaam te mooy ci ak lu ñu mën a gis nag lu ma mën a doon bu ñu nawee génne ci lislaam nanu bañ nee na loolu mooy li njëkk ci lu ñuy musal bi ko ñaareel mooy ñu am ngànnaayu ngëm yàlla ñu fexe ba suñu ngëm suñu pas-pas yàlla làq ko fu yàq yeggul léeg-léeg eh, yàlla nañu yàlla làq fu yàq yeggul doomu aadama fan la mën a làqu ba du yàqu koo xam ne lu atam di gën a dem muy gën a màggat tànk yi di bañ bët yi di bas ndigg yi di metti kanam gi di gën a ñaaw bañ yi di wadd kon kay du jëmm ji ngay làq bu mag ñi ne làq fu yàq yeggul lañ ci jublu mooy pas-pas bi mais du jëmm ji ndax jëmm ji moom lu at yi di gën a bari rek muy gën a yàqu waaw kon nag yàlla nañu yàlla làq fu yàq yeggul lañ ci jublu mooy làqal ñu suñu pas-pas fu yàq yeggul du ko mën a yàq taalubeem du ko mën a yàq taalubeem nag mooy ñi nga xam ne yor nañu alal yor na nu alal pour jënd pas-pasu jullit ñi ñu bari jaay nañ seen pas pass ndax yàlla laqalu len seen pas pass motax mag ñi daan ko ñaan yalla laq fa yaq yegul seen pas pass dañ ci jublu seen ngeum yalla kon nak nit ki dafa wara ngannaayo ngannaayu ngeum xam itam turu yalla yi xam melokanam melokanam yoyu ak turam yi nga xamanteni ni kenn bokk kook mom waaw nga xamne yalla yàlla kenn du gis kon bu la masiixu dajal ne la waxul deug ngor nga xamne yalla du lek du nan te masihu dajjal fay lek di nan nga xamne kon day fen mhm. kon nak bo jàngee turu yalla yi jang ay melokanam, da nga meuna nat ñi bëgg taxaw di woti uluhiyya ci sa kanam da nga len dakk ndax su fekkee dañ la isa ibn maryam yalla la am ñu ko gëm yalla neena isa ak ndayam daan nanu lek. kon kuy lekk di naan mënul nekk yàlla te itam nit ñi daan nañ leen gis ak i bët kon koo xam ne nee nga yàlla ñu lay ñu ngi lay gis ak sa eh, seen bët loolu day dàq ne doo yàlla nee bokk na ci lii tax nga mucc ci masiixu dajaal mooy at taawuzu min fitnati dajaal nee na di muslu ci fitnaam waaw ah, muslu ci fitnaam تبارك الله بكي برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام